D'accord.

day wàccu jógal doy na doy na jógal sigil leen sigil leen rek nang rek liggéey ko liggéey ko nang rek c'est pas normal mu ne mais dafa war a am xel bi war na xam ne ñun rek suñu man fëgg naa ko ba mu xool. sëlma ko sëlma ko sëlma voilà. d'accord dina la woo léegi dafa dafa man maa leen ko amul sécurité maa ngi leen téléphone am. moo fekk naa ko nee naa ko amul sécurité. alam wax baal leen ñu rek. voilà liggéey a moom fu mu nekk fu mu nekk. toog ni dafa xat ana gars ñoo bu moo baaxul tànk bi fan la série bi wala série bi la. indi indi ko côté bi. ne. gis ngeen ko moom la fa def Thank you. est que duñ ko yóbbu si district ah, euh, lii yëpp nag li ko indi xam ngeen ko. dañu doon dëkku teraanga doon dëkku démocratie. Euh, président Senghor joge fii te amul benn problème. président Abdou Diouf jógee fi te amul benn problème président ab Abdoulaye di jóge fi te amul benn problème Macky lu ñu defal ko teraanga jox ko ñaari mandat mandat wam jeex mu ne moom du dem li xew fii mësul xaw Sénégal yenn saay nag nga dégg ñoo xam ne ñoom dañuy bëgg a justifier lu leen neex naan 1967 ak 1968 mën na mës na fee mës na fay am waaye la fa mas a am Senghor nekk ak benn candidat moom rek taxul ñuy wax le 2 avril 2024 mooy le dernier jour de Macky Sall au palais de la République mooy le dernier jour boo xam ne sénégalais jox nañ ko confiance mooy le dernier jour boo non non non non non garaawul nañu ko gérer amul problème waaw. dañuy xaamul dal la kat la ñu yóbbu waaw dañuy xaamul dal la. dañuy bu tànnee rek day denc de. mais na ñëw war na dëkk rek dañuy yóbbu. dafa am ñoo xamante ne des fois dañu ñuy raf quoi. loolu moo ci gën a. xaaral xaaral pare. ma ne demal naa dugal sa loxo non non benn loxo bi bii day dugal waaye moom la il sa loxo bii day dugal man ma dugal fii waaw trois deux di jóg doxal léegi sa benn loxo mooy jàpp mooy jàpp loxo sa loxo sa loxo góos mooy jàpp loxo